Marcel Maron ci un jour une actu tey ngay waxtaanee l'historique des binationaux le prétexte ku nekk xam na xam na ko aujourd'hui je pense que euh, Aliou Cissé bi mooy dernière publication de l'année su ma jumulee Cheikh a euh, mu soxal la yi euh, prétexte boobu nga jël tey pour waxtaanee l'historique des binationaux tout à fait et bu ñu koy wax nag xam naa Chérif moom dina ci dina ci sawar a waxtaane trop voilà donc tey comme ni nga ko waxee soxna Fatil Aliou Cissé di nar a fësal liste 26 joueurs mm. yi nga xamante ne ñoom ñooy nar a disputé euh, dernière journée ñaari dernière journée yi des ci wàllu éliminatoire mondial 2022 bi nar a am foofa ca Qatar ñu njëkk def focus ci ki nga xamante ne naturellement moom mooy def l'actualité actuellement même si euh, wóoraguñu ne dina bokk ci liste bi mais euh, xel yi daal ñu ngi wax ne ne. Mhm. Euh, mën na am mu bokk fa. Mhm. ki di Pape Gueye Pape nekk milieu de terrain âgé de 22 di football foofu de Marseille ca France. Mhm. moom nag ñu ngi ko formé au Havre toujours en France dans la région de Normandie. il est né atum 1999 à Montreuil en France toujours euh, donc euh, Montreuil ku ko wax rek euh, xel yi dem ci communauté communauté ki malienne bu bu bu takku bu fa bu fa nekk. Mhm. voilà donc sànq ñu ngi ko doon gis ci reportage bu Mamadou Ndiaye bi balaa muy football Marseille il avait la possibilité mu football foofu ca Watford. Mm. naroon na fa donc rejoindre kooku de kooku di Ismaïla Sarr mais bon terme financier yi arrangé wu ko woon loolu waral mu mujj signé mm-hmm. à l'Olympique de Marseille pour une durée de quatre saisons. Très bien. aywa euh, ndax mun nañ am euh, euh, les pieds nus waaw ku ci njëkk nag mm. ci ci wàllu binational bi rejoindre la tanière mm. kooku di Souleymane Sané moo tax ñu tuddee ko le pionnier comme mm-hmm. comme tu l'as si bien dit mm-hmm. moom nag 26 euh, février atum 1961 Dakar mm-hmm. euh, mu nekkoon euh, ba mu demee France daanaka carrière militaire la fa bëggoon def faf mujj doon footballeur professionnel foofa ca donc en Allemagne il a joué au SC Fribourg mais également au SG Wattenscheid 09 également au FC Nuremberg Nuremberg joué na itam Autriche ñu koy fàttali Autriche xamante ne foofu nekkoon na fa meilleur buteur championnat Autriche benn saison Euh, mu am euh, juróom fukk ak juróom sélection ak euh, gaynde yi. Hmm. mu bokk ci CAN 90 ba amoon foofu ca Algérie ñu toglowee en demi-finale par le, le pays organisateur Sénégal 92 itam. Hmm. football na ko ba ba ñuy toog quart de finale contre le Cameroun mais également en 94 hmm. bi nga xamante ne moom la Nigéria remporté woon ñu toogoon ci quart de finale face à la Zambie alors Souleymane Sané moom di Papou Leroy Sané et justement à ce va euh, découvrir une nga xamante ni Claude Leroy euh, bi nekkoon euh, sélectionneur équipe nationale Sénégal atum 1992 notamment euh, moom moo doon def témoignage ci euh, ci Souleymane Sané ko. on est a fait 1000 kilomètres pour aller à Wattenscheid c'était le petit club enfin petit club entre guillemets euh, pour passer des moments avec lui, avec sa femme. Son fils n'était pas encore, n'était pas encore né et, et pour le convaincre de, de, de venir rejoindre les, les, lions de la Teranga. Euh, moi, j'étais le seul à, à parler l'allemand à l'époque, donc euh, parce que lui parlait un petit peu anglais, mais il parlait allemand, il parlait pas du tout wolof, et il parlait pas français. Donc ça a permis de, de communiquer assez facilement et, et j'ai réussi, il m'a laissé quelques jours, mais j'ai réussi à le convaincre quand même. J'ai bien senti en partant que, que je pensais qu'il avait très envie de nous rejoindre, de rejoindre l'équipe nationale. On est parti d'Avignon, on a fait. Aywa. Ah voilà, donc euh, il avait très envie de rejoindre l'équipe nationale selon mhm. euh, Claude Leroy kooku di Souleymane Sané. Mhm. Euh, bu ñu jógee ci loolu rek ñu xool. Mhm. Euh, après année boobu noonu nga xamante ne Souleymane Sané euh, jot na yegg ci tanièru gaynde yi. dañuy xaar ba année 2000. année 2000 yi moom mooy li ñu retour en force nga xam ne ne phénomène bi dañu ko gisaat. mu tàmbalee ci Kalilou Fadiga Kalilou Fadiga nag ku ko tudd xel dem ci gaucher magique bi le maestro né

Euh, à côté de gis na ne am na ñoo xamante ne ñoom ay binationaux la ñu ñoo xamante ne étranger lañu juddoo euh, mm-hmm. notamment en mm-hmm. ni Habib Beye bi nga xamante ne mm-hmm. en France Sylvain Ndiaye le talentueux Sylvain Ndiaye et qui n'a pas eu une longue carrière comme on l'aurait Paris en France à Paris en France. Mhm. et puis mhm. euh, xamante ne moom nag entre le 23 juin les autres. voilà exactement donc mhm. moom le 23 juin 81 le juddu foofa ca Aubervilliers. donc ñi ñooy euh, génération ñoom ñoo nekkoon en équipe nationale. voilà donc 2002 euh, xam nga ne histoire ndax jaloore ñu def ba faaw lay nar lay nar a wëy donc

ak ñi nga xamante waaw ki nga xamante ni moom mooy euh, Sylvain Ndiaye mm-hmm. bu ñu jógee ci loolu ñu gis na ne mm-hmm. atum 2003 mooy at bi nga xamante ne vraiment Euh, phénomène bi dafa gën a jël ampleur. Mhm. Euh, lu ko waral euh, doon atum 2003 bi nga xamante ne FIFA dafa génn benn modification ci règlement am lu waral lu jëm ci bi nationaux yi. Mhm. comme ni ko article huitam bi di ko waxee mu doon rek benn joueur bi nga xamante ne léegi am nañ droit bu leen neexee ñu tànn beneen équipe nationale ginnaaw football guñu mhm. ak sélection A boobu noonu. bi ñu bi ñuy représenté donc c' était le cas notamment de Lamine Sakho. tubaab bi doon ko ne Lamine Sakho l' équipe nationale. du Sénégal et Jacques euh, et Jacques Fati. maa ngi naan Jacques Ansou Fati. Mm-hmm. non non c'est Jacques Fati. Mm-hmm. <laughs> voilà ah, donc. Euh, quelques mm-hmm. chiffres voilà quelques chiffres euh, on, on, on va y venir. Euh, top 3 bu ñu xoolee bu ñu fàttali ne tamit ne Mamadou Niang il est dans ce registre là muy euh, un binational moom tamit moom.

depuis bu mu nekkee sélectionneur équipe nationale bu Sénégal en 2015. très bien. ñu jeexalee ñu jeexalee benn benn casting l'inoubliable casting parmi ces binationaux mm. euh, Bruno Messu à cette époque 2002 da doon voilà da doon da doon wut benn benn troisième gardien il avait déjà Tony Silva et Omar Diallo donc il lui fallait un troisième gardien de but mu le terrain Samuel Monin bi nga xamante ne jamono jooju là on le voit avec le maillot de l'AS Monaco mais jamono jooju Red Rovers doon joué club de Ligue 2 en Écosse gardien de but donc Bruno Metsu ndeysaan ndem si yàlla mu ngi nii moom moo ko convoqué woon c'était lors d'un match amical ici au stade à l'ex-stade de l'Amitié contre le Burkina Faso

malheureusement. <laughs> mais comme c'était amical c'est pas C'était amical mais ça prouve également erreur de casting. même le grand Bruno Metsu il l'a fait. oui voilà paix à son âme. Bruno Metsu François Jules Bocandé Pape Bouba voilà <laughs> merci beaucoup Marcel. mais merci à on se retrouve tout à l'heure sur le plateau. merci à léegi léegi ñu jàll ci leneen muy de quoi